tey nag da ngeen ma beral loxo parce que lii lu rafet la lu nit ñi war xam la parce que day wane ni lañuy gis màkk di yéemu di ko gis Medine di yéemu am na fii te xamuñu ko woon moo tax bi mu waxee affaire tele bi ma ni xalifa Sall président de la République di ngeen am licence incha allah parce que xam nga màkk ju jumaay màkk ak Medine dañ yor seen tele yéen ñiy seetaan xam ngeen ko su la neexee seetaan màkk su la neexee seetaan Médine donc kër yàlla bu ko mën surtout fii c'est normal que ñu jox ko licence parce que licence da ngay def service public lépp lu jëm ci askan wi xeet wi ci li muy dunde ci na muy dunde ak léppam nga di ko xamle di ko wane fii mu jëm ci diine jëm ci suñu kilifa c'est Cheikh Ahmed Bamba ak diine ji ma ni kooku neexalu leen ci kenn on vous aura pas par force la parce que dafay dugg ci li ñuy tuddee service public en tout man dey galloo naa ko parce que nag barkeel la barkeelu la ak liggéeyal sëriñ bi ak liggéeyal diine ji